leen ci xibaar yi gën na ca fës euh, jot na waxtu bi yegsi na ngir euh, président de la république daal di waxtaan ak askan wi ci discours nag bi mu leen jagleel du yàgg ci fan ñu teg man lay doon ngir daal mu waxtaanee rawate nag lu jëm ci candidature bi ñu rumandaat fii ak 2024 njiit réew mi nag doon dalal ni ki démb euh, ñi ngànkoon dialogue national bi mu jox leen liggéey boobee ngir ñu jébbal ko ñàngat yu mujj yu jóge ci boobule liggéey manifeste yi amoon fan yi weesu wala ci weeru juin bàyyi bakkan dal di ci xott njiit réew mi nag ne loole mbirum terroriste kese la te kenn du ko bàyyee noonu ci nag boobu jamono ca Guinaw Rails Sud moom njabooti ñu loru woon ci yooyu les manifeste maanaam ji seen bakkan xottoon seen njaboot daal ñu ngi ci euh, guuta ba tey daal bëgg justice def yoonam ñaan pàcc xibaar yi Pape Malick Diaw tàggat yaram perte de vue ak astumen Thioub ci technique bi Abdou Thiam asalaamaaleykum Seydou dal leen jàmm ci rajo bi ngeen taamu RFM ñàngat yu mujj yu jóge ci liggéey bi euh, ñu dénkoon ña waroon amal jaloog nationale bi jot nañ ko jébbal niki démb njiitu réew mi cérémonie ba nag ma nga amoon ca palais de la République ca salle des banquets njiitu réew mi nag euh, yëkkati ay kàddu ci boobu boobule ndaje daal ngir waxtaan ak euh, askan waaye tamit ne dina yëkkati yenn kàddu lu yàggul dara di discours de la nation ngir waxtaan rawatina nag li ñu ruuma naan dafa daal di ne candidat ci ngir nag daal di fexe ba calendrier électoral a ñoŋ président Macky Sall dañu daal di tas assemblée nationale gannaaw présidentielle 2024 leexaleek Mouhamed Diop. commission politique mooy bi gënoon jafe lijjanti ci biir dialogue national bi cordinateur bu dialogue national bi di Moustapha Niass di xam ne ne am na ay bés yu bari yoo xam ne daanaka demoon nañ ba mbir yi di waaj a jaxasoo waaye lépp dellusiwaat na ci yoon ba tax na résultat yu baax lañu am bu ñu sukkandikoo ci rapporteur général bi di Marie Angélique Savané. les débats waxtaan wi nag wax dëgg yàlla ci jàmm ak salaam la amee naam ñu ñëpp jubóo ñu woon ci lépp waaye ci respect yi ak ci teggin la amee woon. les diversités de croyances d'appartenance politique président Macky Sall rafetlu bu baax a baax liggéey yi ak résultat yi nga xamee ne dialogue bi am na ko rawatina dialogue politique bi. pour luy jëmale Sénégal kanam la. du pour président de la République wala. wala keneen. mais lan mooy jëmale suñu réew kanam parce que foofu lañu toll. am na fu réew di toll. faaw nit ñi waxtaan. yeneen commission yi tamit liggéey nañ liggéey bu am solo bu ñu sukkandikoo ci président Macky Sall mi nga xamee ne ci biir waxtaan yi ñëwaat na ci day nekk kan am déet. lii tam danañu permettre ñu dem ci élection yi de façon apaisée donte gaañi ba léegi waa président waxagul de ne woon naa leen bu jotee rek dinaa wax te presque jot na léegi kon daanaka yegg si nañ incha allah loolu dootul sore mais li wóor mooy lii ñu def ci dialogue bi posé na les conditions ci li ma gëm man que élection apaisée la ñu jëm. Sénégal li muy am ci élection bari na lool jot na nag ñu teg ko ci yoon bu ñu sukkandikoo ba tey ci Macky Sall. moi fukki at ak ñaar yi ma nekk ci nguur gi def naa fukki élection ak benn te loolu ay koppar yu bari la te sax dafay ndiru yàq moo tax ñu war a xool naka la ñuy tasee assemblée nationale bi ngir gannaaw élection présidentielle yu 2024 ñu mën a am ay élection législative. que les gannaaw plénière bi ca palais de la république léegi jot na ñu xool naka la ñuy wéyee les mesures yi président de la république ne danañ saisir assemblée nationale ci semaine bi di ñëw ci li ñuy wooye procédure d'urgence. ñàngat bi nga xam ne moo jóge ci les waxtaan. wala waxtaan yu mujj yi nag Thierno Alassane Sall euh, di député daal ne euh, dafay rek ñëw dëggal li mu waxoon kon am na dëgg euh, dafa daal gis ne ay arrangement kese la daal ngir fexe ba ñenn ñi mën a bokk ci élection présidentielle 2024 di rek wane ne daal yoon moom dañ koo tënk fañ ko jaaxal rek lay jaal di jaar te mënu ci dara di gis-gisu ki jiite république des valeur mun a jàpp ne daal ñi looru ci yile waxtaan mooy ñi nga xam ne dara amuñu ko ci mim réew Thierno Alassane Sall ci téléphone beeg Mamadou Makhba daf naa ne dialogue bi li fa tukkee bettul kenn ñun ñu ci bokkoon bañoon a bokk dañu ne woon xam nañu fu ñu bëgg a jëm conclusion yii nii moom lañ ci naroon tiire def naa ne waxoon nañ ko mu leer te ñëpp dañu war a nangul ni am na nag ñu doon wax ni waaw da ngeen war a dem parce jàmm réew mi amaana ñu jëlee fi leneen déedéet jëlew fi lenn lu muy euh, ñi nga xam ne dañu jàppoon dañu jàppoon laa wax de ñu Macky Sall moo leen éliminer parce que dafa utiliser juste dama jàpp ni am na ñooñu lu ñu def bañ leen attee ñoom kese bàyyi leen ñu tere leen ñu bokk ci élection tey jii ni ñu fexee ba waxtaan ak ñoom ñoom bala dialogue bi di door parce que lañu wax na ko fexe ba léegi ñu waxtaanaat ñu xaw ko taaral ba ñu ñooñu ñu ñu boolewaat leen ci jeu bi te am ñu ñu bàyyi day mel ni donc loi république bi newu fi pour ñëpp pour république bi daf fi nekk rek pour ci coobare ñenn ñi cest à ba nit ñi di wootee nañu waxtaan dañu yaakaaroon ni amaana xaru tabaski bi dina gën yomb amaana jiw bi dina gën a yomb xëy gi dina gën a yemb ci xale yi beneen Sénégal dina ci xaw a jub dinañu waxtaan ci loo xam ne ay pexe Sénégal bi gën a gën a nekk Sénégal ñëpp waaye def naa du loolu moo ko tukkee manifeste yi amoon lu yàggu dara bay bakkan daal te ci xoot ñëw na démb te wax ci waxtaan yi ca président de la République président ak Sall naka ne li fi amoon moom diggante benn fan ak ñaari fan ci weeru juin bi weesu daal du leen lu dul mbirum terrorisme mu nag jàpp ne daal loole moom bu kenn jàpp ne dañ ko bàyyi mu sedd président Macky Sall ak Mouhamed Diop Diop kii maye nag moom <laughs> li muy def def na ko ba pare moom moo xam ku fi toog après le vingt cinq moom rek a ko xam ñun ñu ñëpp dañu làmbaatu rek ku ne di jéem loolu nag doomu aadama bi war na ko def di jéem loolu bañuñu ko waaye waruñu si jéem bi nag ñu yàq réew mi taal ay université fi ñu war a tàggatee ñi gën a xarañ si réew mi pour yor réew mi loolu lan nga bëgg ci réew mi ban defar nga ko bëgg a def loolu dafa doy waar dafa garaaw brûler des li nga xam ne Sénégal moom la gën a am ci lu am valeur tey train bi ñu def ñan ñoo ci dugg est sa man la wala sama waa kër TER bi du waa banlieue ñoo ko moom bu ko taalee kan lañ ko yàq yàqal BRT boo xam paree ko ñu bëgg ko yàq mais loolu mooy ban xeetu politique et loolu aussi mënuñ ko nangu jàmm moom la ñuy woote waaye dafa am loo xam ne mënul nekk ci réew cest di dire mënoo ñëw ci réew tànn na yow lépp lu charte réew mi wax yow da ngay def le contraire nga yàq charte yi ça veut réew mi day yàqu réew nag bu yàqoo mais amatul dara lu fi taxaw dara amatul parti politique syndicat kenn dootu fi am benn droit te leen réew yi mu am ndax di ngeen fa nekk naan leader de parti la wala doo leen wax bu ne pas droit la parole te boo leen waxee ñu tëj leen ci kaso yi ba pare leen donc on a intérêt à préserver ñu sàmm réew mi li ñuy wut ñu wut ko si njëkk ak teranga ak gëm yàlla xam ne bu ko tuddee kenn mënul si dara kenn mënu ko xañ mais bu ko tuddul mënoo si def dara boo àndee asamaan ak li ci biir doo fi nekk tous c'est la réalité. gën a ray sud njaboot ñi loru wala ñàkkun seen i bakkan ci manifeste yu metti yi amoon euh, ci mim réew ñoom li ñu bëgg mooy yoon def liggéeyam. loolu nag ñu daal di ko waxtaanee ci bés bi nga xam ne démb la woon sax ñu doon euh, jàng alquran ak ñaanal ñi way dawlu yooyee dina taxawaay conseil communal bu jeunesse foofee ca ginnaaw raay sud Salamatu Ousmane Diallo. Ibrahima Drago ak Basiru Sarr ak Ismaila Traoré allahuma ixfir lahum warhamhum boole leen ca way texe ñoom ñett ñi ñoo dëkk ci ginnaaw raay te ñu daal leen di faatoon ci manifestation yi weesu ginnaaw ñett ci ay bés ci yileeg xew-xew conseil départemental de la jeunesse lëkkaloo ci njaboot yi di fàttaliku seen doom yi ba tey jii jaarale ko ci ay ñaan Amar Diaw mooy président CDJ bu ginnaaw raay sud soxlawuñu dara ñaan dem na moo dogal ñu dem bi même fekkee dañ leen rey mais leen rek lañ soxla ñoom fi nekk mooy ay ñaan looloo tax ñu ne ah nañ organiser journée bi pour ñaanal leen. Lamine Sarr mag la ci kii di Basirou saax mu ngay daal di fàttaliku bileeg bés na mu méttee woon ci ñoom muy daal di nag sàkku yoon daal di def liggéeyam. waaw métti rek métti rek vraiment. métti rek comme niñ ko waxee sànq parce que nit ku nekk moom ñu nooy jullit lañ ko dee jaaxaluñu mais ci façon dem ku mu nekk rek membre ci sa famille rek métti na trop c'est vrai que nga nekk ak ñi. di nga dem ba benn moment dootoo ko talati mais boo demee wéet rek lay defaat ay fàttaliku ci yow quoi mhm. il faut ñu taxaw ci ba lépp lu yoon war a taxaw rek moom mu def foofu waa façon demin bi it ñu xam ci ban anam la. bilan bu metti ci ginnaaw raay mi nga xam ni moo ñàkk ñett ci ay doomam ñu ngay daal di ñaax ndaw ñi ñuy daal di ànd ak dal bu événement yu mel nii daal di amee. au niveau moo tax ñi ñaan mu def liggéeyam ñëpp am droit marche mais nañ yàlla rek en tant ndaw lépp lu def ñu bañ a yàq suñu gox parce que fi yàq rek ñun ñooy perte. ginnaaw bëccëgu jàng kaamil gi jëmale ko ci ñi nga xam ni ñoo loru woon ci manifestation yi dinañ daal amal ak caravane de la paix commune bi ngir daal di ñaax ndaw yi ginnaaw raay sud yëpp ci dal ak jàmm Salamata Ousmane Diallo ginnaaw raay yi ngir rajo Futurs Médias naqar la waaye dañu des ba tey ci euh, yoon ak politique conférence de presse bi nga xam ne euh, soxna yi ak ndaw yi coalition Yewwi Askan Wi dañ ko bëggoon amal la démb ca siège yu pur mujj nañ ko amal euh, ca siège yu Euh, waaw foofu sànq mujjee amal ndax sa siège PRP bu Déthié Fall mujjul woon am ndax dañ ko bloqué woon li nag bëgg mooy ñu teggi blocus ba ca kër Ousmane Sonko ca cité kër góor gi ngir mu mën a dem euh, ci jàmm ak salaam mën a amal tabaskeem ndaw yi nag ne dala ñu fas yéene dem yóbbul euh, xar xaw tabaski seen njiit Ousmane Sonko ñu tamit bëgg ñu daal di bàyyi nu mu gën a gaawee ñu teg ci ñu teg loxo yóbbu ca prison ñu jàpp ne daal du lenn lu mbir politique ku ci mel ni maire bu Kër Massar Sud Maodo Max ba cay leeral dañoo taxawoon temm ngir amal seen conférence de presse ndaw ak jigéen yu coalition Yewwi Askan Wi di nakarlu blocus biñ nemmeeku ci kër Ousmane Sonko ne tabaski bi mi ngi jege si te leader bu Pastef dafa war a tabaski comme ñëpp buñ sukkandiku ci ndey suufi Camara ak Maimouna Dieye. droit yi ñu am sunu njaboot war ko am loolu la bëgg ñu bàyyi ñu défendre ko bu ko neexee ak bu ko neexul Ousmane Sonko nii ñu ko tëjee tabaski bii ñu jëm dëgmal ci droit lan nga may Ousmane Sonko tëj njabootam monsieur le président xanaa Ousmane du jullit xanaa moom warul tabaski ay jigéen ñoo nekk biir këram seeni moroomu jigéen yépp dugg ci marché bi di ndugg di waajal di xotti di sol pour waajal bisu tabaski nga tëj leen ba bëgg ñu bëggee xorom dañuy woote téléphone ñu may leen ko ñu dugalal leen ko seen kër. Pape Abdoulaye Touré ak Mohamed Bilal Diatta di maire bu Kër Massar Sud ba tey ñi ngi ci prison bi ñu jàpp leen te politique képp lal ko bu buñ sukkandikoo ci maam Bigui Sadji mi ne dañoo fas yéene sax plainte Adji Sarr. tey ku ci mel ni monsieur le maire de Kër Massar Sud eh, Bilal Diatta depuis ñu ko jàpp ba léegi benn yoon la janoo ak euh, ak procureur Pape Abdoulaye Touré boo xamante ni moom moom aussi ñu jàpp ko jiiñ ko ay affaire suba insha allah rabbi kenn mënul fexe ba population sénégalaise du ñu génn dem seet le président Ousmane Sonko dinañu ànd ak suñu ay leader yóbbu ko xarit tabaskeem di ñaan nag bépp autorité administrative wala nga xam ne yaa ngi ci force de sécurité ñu xam ne ne ñun duñ seen ay noonu ndaw yi ak jigéen yu yeewi askan wi di woo njiitu réew mi mu delloo si xelam bàyyi bépp xalaat bu jëm ci troisième mandat waaye itam bàyyi ñi mu jàpp ci kaso bi way takk der yi dañoo bloqué demu siège yu PRP bu Déthié Fall foofee nga xam ne euh, waxtaan yi foofu la waroon a amee nag loo xam ne daal amoon na sax euh, am na tey ayu bés euh, ba ñu bëggee woon a amal dialogue du peuple bu F24 siège yu grand parti bu Malick Gakou Malick Gakou nag jàpp ne loolee moom dafa àndul ak démocratie benn yoon te xel mënu ko nangu ndax moom réunion ku ne mën nga koo amal ci foo xam ne daal privé la te loole constitution moo ko daal di maye moom Malick ak Modou Makhba barki démb rek euh, bi dialogue euh, F24 bi amee presque quatre-vingts gendarmes ñoo ñu fekk sama bureau sama biro bureau génne ma sama bureau génne waa dialogue bi yëpp tey ji aussi loolu la ñuy defaat bloqué siège u PRP euh, et ce n'est pas une première et je suis persuadé aussi que du nekk la dernière fois mais ñun on est des démocrates nous sommes des républicains mais nous sommes de combattants pour la liberté et la démocratie tey jii Sénégal kenn mënul fexe ba suñu droit bi nga xam ne nii liberté ak constitution moo ñu ko may dañ ko duñ ko doxal kenn mënul fexe loolu jóge nañ fële ñu ngi fii ndax li nga xam ne mën nañu dëgmal am ci ndam la ñuy am ci ndam mooy lan moo ñu fexe ba président Ousmane Sonko bi nga xam ne nii dañ ko dugal ci kaso biir këram ñu génn ko mu dem dox li nga xam ne nii moom mooy ay àqam ak am ci réew mi te loolu la yeewee askan di xeex te loolu dara mënul tax ba ñu génn ci xeex boobu bu neexee la yonante pour man RFM mooy rajo bi jaamu seen soxla. département bu Koungheul nag ci région bu Kaffrine dina am ab programme daal bu koy làkkarti euh, ci li nga xam ne moom mooy gox yu ñu bayee dina ak boo xam ne boobu financement tollu na ci euh, ñeent fukki milliards ci suñuy koppar li ñu nag jubli mooy fexe daal ba ñu gën